waaye bés ba dina tàng dina métti le 23 janvier incha allah naturel kon da ngaa jàng bu tàngo dutee ñu xool monsieur ministre ci yaram ak teggin bi ci yaram bi ak teggin bi monsieur ministre lool nga dem jàmm ji ngay woote ñun jàmm ñu bëgg suñu réew jàmm rek lañ sax defe naa ku yor jàmm teggin bi war ngaa taxaw mu Sénégal ba dajeeg Abdoulaye Diouf Sarr taxaw nga monsieur le ministre suñu engagement ci kanamu président ak engagement ñu dugal la ci mairie Dakar defe naa kenn na tab parce que ñu def congrès d'investiture fii ci Dakar dinañu xam ne Dakar lépp dëgg la waaye tey jigéen ñi ñoo àndaloo toute la coalition wala ne suñu engagement sa ginnaaw pour tàppale la kenn mënu ko estimer ñu dañoo gëm suñu président mu am bilan boo xam ne bii tey dox défendre ko dafa yomb fii ci Dakar mu liggéey ci liggéey bu rëy jàppale jigéen bi rek yow doo ko son programme de développement jigéen ñëpp gëm ko nag ñëpp gëm ko kon nag yaakaar naa ne coow dafa bari rek waaye coow su ma dee ci booru teen bi ñu amul baax la. situation Covid 19 fii Sénégal xam nga kuy sénégalais naw na la ñun tamit maire boobu ñu recherché ay imam imam seen maire bi nga xam ne kii lu tànnee ñu xam kii mooy kan ak lan la mën def yow li nga def kenn ak kon ñun ñun waa Dakar laa ko de dama ko dëkk Dakar ñun waa Dakar laa ko ñun ñoo lay jàppale ñoo lay dugal ci maire bi incha allah bu ñu ko waxee dëgg la parce que defe naa 2019 le président de la République confirmé na ne ko jigéen ñoo ko fal monsieur le ministre xam naa daal jigéen ñee day fal loolu du ko ci nekk ñun ñuy coow dëgg naa ko naan man ku ma doon ma fay ñun kuñu doon ngay baal ñun ku ñu doon mu baal xam nga doole ambulant ku ñu doon mu baal la ñu ngi am similaire boo xam ne ni booy teg wax lii la ñu def fii la ñu dugal éducation yi lañ ci def infrastructure lañ def ñu fayal ñu xeexu ñu jàng rek la ñuy wax def naa ko war a jàng ba tey jii monsieur le ministre egsi na kon waa Dakar ñi lañu investir toog fii nit ñi xam ne dañ amat kasaroon dañ tan dañ nag dañ nag dañ nag dañ la wax. mais waa Sàcc bi daal waa Gane ñu ngi nii. Sall dafa doy. waaw ndax président de la République Macky Sall dama ragal lool kii. ragal ñu kenn tuuti dara dañoo xam yoon wi ñu jëm naka la ñu jëm. Idriss xool quand même. 40 milliards de projets. suñ ko defee ak suñ ko dugal. am na yaakaar ci la 40 milliards. monsieur le ministre. lëkkalaa ñu ngi